waaw bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw daam loo xam ne dafa am te faw ñu wax leen ko mooy état bi bu fekkee ne daf ñëw bëgg a fayee bor na ko wax ndax mënta bëgg a daaneel économie pour bëgg ñu baal ko ay borom mënta nekk ñi nga xamee ne ñoom ñooy défendre couvre-feu bi yëpp dañoo am ay salaire di xëy di wàcc ñoom ñooñu ñëpp nag bokk ñoom ñi nga xamee ne ñoo nekk fii ci tool yi di liggéey secteur économique bi yëpp président yow yaa ngi daaneel économie daaneloo ko ngir dara ngir bor yu bari yi nga yor li nga leb sa programme yi moom moo tax ci nga ko dugal programme nag yi nga ko dugal say problème la gisuñu suñ suñu bopp ci benn côté léegi nag tamaate bi ñuy bay ak salaas yi ñuy bay ak betterave beeg concombre beeg tool yëpp yëpp ngi taxaw ngir lan station yi foo dem boo yóbbuwul sa machine yenn sa machine yóbbu duñ la nangoo jaay essence fan lañ ko teg fal lañ ko tek machine ni mënuñu ko yobbu diko diko jëlé essence diko jëndi pour pour jëndi essence man ta nek benen bi tamit moy maire yi nga xamé né ñom ñoo nek fi di liggéey maire yi liggéey ñom ñëpp kenn gontatul ngon ki daan jaay ñent plan wala juroomi plan légui benn plan sax mënu ko jaay ndax jën amul normal yap amul amul normal ah, ki euh, maire yi marché yi ñuy wàcce nit ñi 5 heures lan lañ bëgg. xoolal xoolal xoolal salaat yëpp a ngi nii ñuy buddi di sànni tamaate bi nga xam ne moo ngi dugganteeg salade yi tamit tamaate baa ngi yàqu lan lañ bëgg su fekkee ne da ngeen bëgg a tayle nit ñi bëgg ñoo toroxal wax leen ko lii daal moom mooy li fi nekk sénégalais yi ni ko ñëpp xam xam ne nit ñi ñii ñoo ngi daaneel économie réew mi te économie buñ ko daaneel mooy toroxal leen waa réew mi ñu boro location war di fay location ñu war di fay ndox war di fay courant war a fay lépp ñooñu buñ liggéey nan la mi di def sudugi duggee ci quartier yep quartier yëpp bo fi duggee mën nga dugg ci quartier ba mu daj amul juroomi salarié réew mi yëpp ay secteur informel la ngeen bëgg lan bëgg a yàq réew mi li ngeen bëgg a yàqee réew mi wax leen ko li ngeen bëgg yàqee réew mi wax leen ko ndax réew mi mënoo leen koo yoree nii programme ngeen indi woon ñu jox leen programme programme bi am na problème wax leen ne da am problème lepp ngeen fay leen boo leen ci mën ta fay ngeen ko ñii ñëw ñuy ñëw buñ ko mënee fay ñu fay ko buñ ko mënta fay ñu bàyyi waaye yéen jotee Sonko tax ngeen bëgg a tëj station nit ñi ba ñun du mënuñoo ut essence pour lan pour lan dama ne war ngeen a xool nag li ngeen di def sonnal ngeen nit ñi trop da yabaate kese nag ngeen def am na ci loo xam ne nag yu fi la lay te baadool la nag am na ci loo xam ne fa muy mujj xam nañ ko yat rek waaw ñun nag sonn nañ ci seen façon yii ngeen di def mënatuñ koo continuer de réew mi mënatuñoo continuer nii wala yow nag ngeen xam loolu.